seet si suñu sëriñ tedd bi sëñ Sidi Mokhtar Sylla euh, day jotaay boo xam ne nii sëñ Cheikh Bassirou Mbacke Abdou Khadir di porte ci yoonu mu bi yëpp ginnaaw bu ñu fa dajee ab liggéey mu boole ñu loolu nag moo tax jëriñ daara ji boole ñoom moom ne ñu colère googu lañ ko ànd waxtu wu lañ ko sàmm ci loolu itam mu seeral ñu taxawaayam loolu sëñ bi euh, seeral ñu taxawaayam ak pëstéefam ak jitteem ak liggéey bi nga xam ne nii ñu ngi fii ci dëkk bi loolu nag ñu ngi ciy sant bu wér ndax ndaw yi moom lii rek moo ci am solo jàngal leen euh, tàggat leen àndoo taxaw leen ba ëllëg ñu ñoo xam ne danañ mën a jariñ seen réew te loolu sëñ Sidi Mokhtar Sylla ñi ñu ngi ciy dox ci liggéey liggéey bu mag bu yaatu ba tudd yi yëpp xam nañ loolu kon nag sëñ bi kololi roobu incha allah fas yéene ko ànd ak yow fas yéene ko wéyal waxtu bu ne rek ñu ànd li nga xam ne nii moom lañ bokk muy tool bu bi bii liggéeyal sëñ Tuubaa fas yéene ko ànd ak yow waxtu bu ne kon loolu kàddu yi daal laa noonu naa ko ci dolli rek ginnaaw boo xam ne nii jëwriñu daara ji sëriñ si jóg ñu euh, jëwriñu daara ji tarxee yabal nañu fi ñu ñëw fi di taxaw loolu jërëjëf si la ah Samba Diaw Masalikul Jinaan ah, ci turu jëwriñ Alaaji Mbàkke yu fay moom it xam ngeen ni CRD bi boobu ba léegi bàyyiwul benn yoon Cheikh Sidil Muxtaar ànd moom ci bis bi ak da ko ci fu mu toll mu ko ciy gunge ba tey jii ñëw na tere xam ngeen ni euh, Serigne Fofana muy responsable politique moom it ñëw na jege lool président Ousmane Sonko moom it mu ngi ne toog waaye muy liggéey finance waaye di kilifa doon jàmbaar doon kenn nag ci Cheikh Sidi Mokhtar bi muy ñëw daa daa toog ak mu Serigne Sohay bu yegg mu nuyoo la ko foofu na wax ko taxawaayam daal di nanu ko ñaan muy Serigne Balla foofu na mu baax mi toog kon Serigne bi yëg na si ñëw yëg na sa teewaay mu ngi lay sant mu ngi lay gërëm waaye ni ñuy Serigne Sidi moom Serigne Mahamadane moom Serigne Abdoulaye. moom it ma ngi ni toog léegi sëriñ Saliou Ba boobu mu mu ngi ni toog ñëw na waaye Cheikh Moutada moom sëriñ Xabaan mu Cheikh Moutada moom it ñëw na mi ngi toog xam ngeen itam ñi yor kafe gi waa Kër Maam Issa muy fédération bi ñoom ñëpp teew ñu bëgg nag bu jëy bi jàng ñu teewlu attentivement sans bruit ah lay ci xam ngeen ni sëñ Cheikh Khadim Fall mi mi mi invité d'honneur bi daanaka yegg si na mi ngi ñëw surtout Cheikh lay bu Fall jëy suñ baa ngi ni ku ku mënta jàng rek mën a jàng rek dugg ñi mën a jàng rek nan dugg bul xafa takk takk leen kaala yi ci ndigg yi mu rafet nga njàng njàng moo xam day tax monsieur le maire sa teewaay bi dégg nañu ci loolu lii nga def yombul ñëw ñëwaat ñu ko man bariwul Cheikh Abdou Mbengue wax na ma ni ma màggalu Touba gi 2 millions 500 mille nga yëkkati jox ko murid di leen dem leen Makka léegi danoo bëgg bu sëñ see Xadim duggee ba toog ñu tàmbali sëñ see Xadim Fall muy woote muy wooteel maamam fii ci stade Marius Ndiaye borom première mai Serigne Moustapha Fall moom sëñ Cheikh Ndigal. ak suñu son bu yegg si nanu ñuy waa kër sëñ Cheikh Ndigal Fall ñu wax ni nag sëñ Sidi Mokhtar jëri na sëñ Cheikh Khadim bu ñëwee ba toog dañuy bàyyi jëy suñ bi tam waaye ñu nuyu bu baax waa kër Serigne Saliou yi nga xam ne ñoom it teew nañu fi Serigne Ganna Masere Mokhtar xam ngeen ne at mu jot mooy waxtaan waxtaan waaye moom it ku ne xam na ni am na taxawaay lool Daarul Muxti ndax moom mi ngi waaj Daarul Muxti bu màggal gi desee ñetti fan ci lay wooteel maam ci Ibra fa nga xam nii Daarul Muxti am na fa kër goo xam ni bëgg na mu yëpp fekk ko fa léegi nag danoo bëgg a dalal sëñ Seex Xaadim mu ñëw xam ngeen ni moom mooy invité d'honneur bis bi sëriñ bi jëli na moom nii nag dafay kenn nag ci Cheikh Sidi Muxtaar léegi nanu ubbi yoon bi ñu bàyyi sëriñ bi mu ñëw sëriñ Cheikh Khadim xam ngeen ni doom ju baax jii di sëriñ Khadim booba ba léegi mu ànd ak Cheikh Sidil Muxtaar ànd ak moom ci bis bi baayam jox ko ndigal ni ko demal ci wàllu Cheikh Sidil Muxtaar nga ànd ak moom bis bi sëriñ bi nag ana sëñ Bassirou Gueye sëñ nan nan dal si sa xam yi Cheikh Ibrahima Fall ma Fall ma yaa si daawlu ci moom ah sëñ bi Cheikh Ibrahima Fall mi ngi dugg si Cheikh Ibrahima Fall bàyyi Cheikh Modou Moussa Fall Cheikh Ibrahima Fall bàyyi Cheikh Assane mi ngi dugg si sëñ kii mooy invité de l'ordre bis ànd na nanu nanu dalal ko dalal nanu ko dalal së sëriñ baa ngi nuyoo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 alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bokki jullit yi bokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaanal a Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba naa li mun naa la lislaam yépp màggale ko di ko ñaanal mboolem kilifa diine yi ak mboolem jullit yépp di nuyu Sëriñ Sidi Maxtaar Silla bi nga xam ne moo woote bis bii di ko ci ndokkeel di ko ci ñaanal yàlla sunu borom dajale ko ci ngërëmul sëriñ bi di ko jaajëfal bu baax a baax nuyu kilifa yi nga xam ne yéen ngi ci jataay bi yépp sëriñ Sidi Maxtaar Mbacke moom Cheikh Mamadou Maxtaar mu ngi koy ziyaara bu baax di ko joxe wàcc waayam Serigne Cheikh Khadim Fall maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziyaara bu baax nuyu Serigne Mountakha Mbacké moom yi nga xam ne mooy mu ngi ci gataay bi ak suñu wëlëree Serigne Mor Diagne kilifa yu baax yi fi nekk yépp Serigne Cheikh Imam ak mboolem kilifa yi ak bokk yi nga xam ne ñu ngi ci jataay bi sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom Cheikh Amadou Mafouda moom Cheikh suñu sëriñ di suñu xarit fekkoog sëriñ Khalil li nga xam ne sëriñ Cheikh Darou Rahman moom dafa doonoon sama sëriñ doon sama xarit di way juróom ànd nañ ca ba tàyyi di nuyu kilifa yu baax yi fi nekk yépp di leen ziyaara di sant yàlla borom bi subhanahu wa taala mi nu defalaat ci kattanam ba ñu fekkewaat bis bi nga xam ne sëñ Sidi Maxtaar daf ko woote fii ci Touba Wakam bañ ba bis bi nañu wax ne <clears throat> màggalu Touba Wakam bokki jullit yépp daje fi bokki taalibe yi daje fi ñu di ko dundal ci dundal yi bu am solo nag te moo di dundal ko goo xam ne dafay tege ci njàngal yi ak ndigal ak doxalinu Seyxul Xadiim ndax jotaay boo xam ne ba ñu fi toogee ba léegi li ko ubbi lépp xasaayit la kon dafay mel ni li tax mu woote sabab bi jëf ji wane na ko Serigne Touba waxtaane ko waxtaane ay ndénkaaneem waxtaane ay jikkoom mooy ndolleen li nga xam ne nit ki daf koy mën di yóbbaloo fu mu jëm rawatina fii jamono toll te boo doon seet <clears throat> lan mooy solution dëgg ngir ñu mën a sauver suñu dund adduna mën a mucc ëllëg mooy du delluwaat bu baax ci njàngaleem ku tedd ci am ba ma Xaadimu Rasuul njàngale moo xam ne dafay jëm rek ci li yonent bi alayhi salaatu salaam indi woon te doon ci yar ay saxaabaam te doon ci yar boo leen jullit ñëpp ndax moom la yàlla digle ne mooy seen royteef wa lakum fi rasulillahi uswatun xasana yonent bi sallallahu alayhi moom la yàlla digle ne nañ ko roy moom la borom bi waxaatit ne wa ma aataakum rasulu fa xudu wa ma nahakum anhu fantahu lépp lu leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andil ko jàpp lépp lu leen tere na ko bàyyi atiiwu allaha wa atiiwu rasul da ngeen topp yàlla topp yonente bi qul in kuntum tuhibbuna allah fattabiuni yuhbibkum allah yonente bi salaa salaam it wax boromam wax ko ne ko neen nit ñi buñ bëggee bëgg yàlla wala ñu bëgg yàlla bëgg leen nañ la topp yow yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon day mel ni boo tuddee Serigne Touba yaa ngi tabb ci biir njàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam moom nga xam ne moom la indi woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ko borom moom yónni woon lépp da koo matale moo tax lislaam ci boppam diine diine ji yàlla reconnaître mooy lislaam mooy xéewal gi yàlla jox jullit ñi mooy diine ji mag nga xam ne bu doon mbubba dog nañ ko dog bu mel na war a mel manees na ko fóot nag manees na koo paase mënees na ko wutal gaal denc ko ko saytu waaye boo ca yokkee dara dana dana ëpp boo ca wàññee dara yi dana manqué ngir la borom bi subhanahu wa waxoon ci al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum lislaama diina yonent bi fi bàyyi ko it salaahu salaam fi jaaroon ñëpp ay saxaabaam ginnaaw saxaab yi taabiin yi seen ginnaaw taabi yi mu jënd du li ñëwoon ñëpp loolu lañ ñëwoon di ko yeesal si Amadou Bamba Xaadimu Rasuul nag dakkantalu boppam rek doy na sëkk ci xam taxawaayam waaye doy na sëkk ci boo gisee ay jëfam xam leen lay màndargaal defe naa boo doon gëstu da fekk bu ci baax lu tasawuf gaa yu baax yi ñi tudd taaju diin ñi sultaan ñi fard ñi xutbu ñi xawsu kenn ku ci nekk am am mandarga boo xam ne moom la dàkkantaloo Sëriñ Tuubaa nag bi mu ñëwee lan moo di aw dàkkante la walla moo di aw turam sax te ismul xaqiqi lay doon mooy abdullahi wa qadim nga xam ne dafa teg tànkam ci al ibadatu teg tànkam ci al xidma ba tudd abdullahi kim la ñaar yépp abdullahi wa qadim rasul loolu ndax moom léeg-léeg nga ku ne sëñ bi dafa bëgg yonent ba tudde boppam xaadimu rasul fekk na moom day dañ ko koo tuddee ay jëfam nag moo ko ko may bañ mañ ko ko nommé moo tax ma wax ne yàlla moo ma seereel ne may xaadimu rasul shahida lil baaqi bi anniya al xadim wa xidmati lil muntaqa bishrun yadum kon day mel ni yàlla moo ko seereel ne moom ci boppam mooy xaddiimi rasul waxaatit ne xaritub yàlla la soppeem la te yàlla ko seereel ay kuréelam alxuraan waxoon yu ne amul ci kenn ci doomu aadama koo xam ne <clears throat> amul ñaari malaaka yu nekk sa mbagg kii tudd raqiib kii tudd atiid alxuraan maa yalfadu min qawlin illa ladayhi raqibun atid nga xam ne mooy kiraamul kaatibin lépp lu way jëf ñooñu dana nu ko bind ñaari malaaka yooyu seen Tuubaa nee na bët bu set dañuy seere ci yàlla ne maay Abdullahi wa Xaadimu Rasuul nga xam ne ñaari malaaka yooyu ñoo ma koy seereel yashhadu li wisa raqibun wa atid fi kulli yawmin inda zil asim majid waxit ne boo leen way ragal yàlla yi lañ doon sàkku di wut ci yàlla yàlla teeyal na sama dund ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba noppi wammatal ma loola taabat xayaati bi nabiyil muntaqa wan xaadali ma waddahu dawu tuqa mboolem li may ragal yàlla yi bëggoon ba di tuuti yàlla jox na ma ko man Serigne Touba Serigne Touba ba mu ne dafa ñëw def li ñu tudde al islah al ijtimaai te loolu moo di réforme sociale ndax sëñ bi bi muy ñëw am na fu fekk jamono ci ab yàqu am fu mu fekk nit ñi ci soppiku jikko am fu mu nekk fekk nit ñi ci tafaxuru bil amwaali wal awlaad wal ansaab ëpp lan tey alal ak juddu nga dégg ñu ne diw yax bu rëy la diw nangam Serigne Touba ñëw ci lan ila tarabuti wal ittihaad wa tahaabu bi dàq leen ci dolomatul jahli wal faqri wal kasal yóbbu leen ci nuurul imaani wal islaami wal ihsaan fekkoon adduna mu mel ni leen dama kukk sëñ Tuubaa ñëw mel ni jant weer wu toll ci fukki fan ak ñeent fukki fan ñaar fiq fépp leer nañ wa dahr kaana zalaaman qabluhu wa ataa badran sara baadama laylu salaamu sajaa loolu la mbokk ma waxoon Serigne Cheikh Thioro moom Serigne Mor Anta Sali Serigne bi bi ñëwee dafa wax ne fi ko tax a jëm fi mu jóg fi mu jëm mooy lan minni lillahi wa lirrasuli wa li sel islaami alxabuud amatul kon geneen jublu wala geneen bëgg xanaa fekk li toolu lislaam mu ñëw na da koy yaasal lil mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatahu lgarra wa inni ahmadu diinun siwa islaamihi la yuhmadu عند الإله وبه نجدد نظافته كل من اللهو طهرت وسنته إن شاء ربي أبين kon ay engagement la mu ñëw ngir yeesal dafi yonente bi alayhi salaam indi woon loolu moo tax mbirum tërbiya Serigne Touba da ko indi ci sowu jant yeesalaat ko bu njëkk cheikhu taalim xam nga ñetti ñetti dañuy wax ne ñetti façon Serigne ñoo am sayxu taalim sayxu tarbiya sayxu tarkiya ñett yooyu yëpp la sëñ Tuubaa boole na ko sayxu taalim mooy jàngale moo dàqoon a jàngale ku jàngal maam Thierno jàngal sëñ Mbacke Bousso ku jàngal kàngam yu fees yooyu ba ñi nga jàngal ñan jàngal raw yaay ki dàq jàngale moo tax ben naar nee na ko ala arba'in admanta fi samani siba ala al ilmi wa taalimi wa zuhdi wa nuski moo dàq jàngale ñëpp lu tax mu dàq jàngale mooy moom daa waxal boppam ne xam-xame xëy bu yi bu ko yàlla fëggee sama dënn lay tàbbi yàlla moom moo ma jàngal man xadim rasul yàqu doon walumul xëy rabbi muallimi ila kalkali faydan yuri lafza wal maana moo tax Cheikh Ibrahima Jubal Machal wax ne allamahu rabbul wara bila taallumin yura fa faaxa kulla man qara inda jamia ulama waxaba li ilman lam yakun min attaallumi wa jaani bikum may na ma xam-xam boo xam ne kenn du ko jàng ustu uluman laa turaa li ghayri lamboo naa xam-xam boo xam ne kenn du ko gis ci keneen ku dul man xawaytu uluman nafiatin bi lafdikun wahabta li uluma man taqaddama wa man taaqaru bikum yaa akram lu ci nekk rek tegtale na dayoo xam-xam boobu mu dàq jàngale ñëpp ka ca topp mooy sayxu tarbiya mooy defar nit xam soppiku jamono xam melokaan yi sayxu tarbiya la sayxu tarqiya ñetti melo lay am ru'yatu tazidu bil amal xitaabuhu tanwiit lil xaal mu xaalati musira li am waafi bi satil bu ko sëbët ne xott nga yëg yàlla boo déggee kàddoom su meloo gën a yokk loo gën a jaxasoo moom leeru yàlla dana dolli ko ci yow waaye damaa gis ci karaamatu Cheikh Ibrahima Ahmadul am ci naari gànnaar yi kuñ tudd sëñ Tuubaa da Ahmadou Bamba mu ne Ahmadou yan ba bal bil xasaaniya daan na baatu Cheikh de ci ñett la tegtaloo ci mu'jama wal yaa'u wal mu ne siin gi shaakiru li ni'amillah wal bil ma'ruf wa yanhaa anil munkar wal xaa'u xaa'ifun min makrillah mu ne ñett yi kum daje yaa def sëriñ te mu ne ci lu dog daje na ci Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo tax mu indi fi ngirum tarbiya bu njëkk say ku taxlim moom mooy jàngale am àllarba ak i dibeer say surga ak say soxna ak sa njaboot boo santaane ñu mu jural la barke waaye tuuf nit aw lor mbooloo di ko topp di wuyoo santam jox la mbaam ñu fay koy wata kallu pepp ñu koy joxi sax aw juróom yi takki million di la jox jox ko sa bopp muy liggéey mu jox la ñuy liggéey di la jox sëñ bi ko fendi loolu sëriñ Moussa Ka wax na ngirum tërbiya ngi xew ci sawu jant yaa ko def pajub aajo yaa tax nit ku ñuul mos ko fi Tuuba ku ci bañ a ànd ak Bàmba xam naa du koo xamut ndax gumba gistu leeru jant yem na Serigne Touba kamaalub rasulullahi mooy mat gu duutu sew matub sayidul kaw nay ni lan jox Serigne Touba gi ñoon naa ne yaay wutaatu jol makka ci defar ku koy sikki sàkka réere jagleel Serigne Touba loolu kon mooy moo doon nu yonente bi ci defar loolu it beneen borom xam-xam wax na ko antal mu bi ma rabbat aminu bii arfan bi xarfin fama fil jili shawak bi mu ñëwee ngir yeesal sunna nag mboolem ci ne léegi ñu ngi dégg ñu ahlu sunna wal jamaa ñu bëgg koo wutal beneen kuréel bu ko moom ahlu sunna wal jamaa mooy murit ahlu sunna wal jamaa mooy murit boo seetee fa mu tàmbalee istaddal muridu bi tawxiid gis nga fa mu jeexal it mënut a jeexal nadhaba ahlu sunna maa al jamaati najaa min fitna mooy nun ahlu ahlu sunna wal jamaa mooy nun banaytu taaxati bi tibaaxi bi dikri wa sunnati wal ijmaa mooy nun ba léegi taxati bitti baax yi sama mbir ci ñett laa ko teg man Sëriñ Tuubaa bi dikki bi bi ci njëkk mooy alxuraan sëñ bi nee na lu may jëf baa ma di ko digle ñu koy jëf ci alxuraan lay nekk xam ngeen ne sëriñ bi ci am njël bi la mboolem awraad jëfandikoo mboolem madaahib yi ñëpp kii ñëw di defar day ñëw jël mbirum ñëpp moo tax masaayix yi kenn ku ne mu nungul la ndax damaa boo demee ci biir mbindam da nga ci fekk mashayikhi Seydina Jilaani wa wa maahu Tijaani waaye dafa dox ab diir nag ab diir bi bi muy wala bi mu nekkee ci ati Tuuba yi te demagul ci géej gi mu leeral position bi mu am ba muy wax ci bàyyi mboolem lu muy jëfandikoo lu dul alquran dafa jëkk a wax ne awwalu mabtada bihi alqadimu taalluqu liman lahu taqdim wa azharana xidmata ama jayshin wa xalbuhu adbaraha min asadi munsalixan fii jaysin min gayri rabbil wara xadimu usul xayri loolu moo loolu <clears throat> boo ko bëggee gën a dégg baax da ngay dellu ca saarifan himmati li rabbi taala raajiyan saqyahu bi maa almain maasikan bil kitaabi masla dariri bi yadi alxaaqidi albasiri almuayin loolu mooy jàpp ci bi dikri wa sunnati aw bil xadis yi mooy indi li yonent bi alayhi salaam indi wal ijmaa mooy li borom xam-xam yi saxal ila llahi bil qurani wa sunnati lati hadat nii saraftu kulla wal xalbu xaacha moo tax Sëriñ Tuubaa ci boppam bu dee ci aqida ashari yi la ashari yi la bu dee ci tasawuf junay di leen noonu nag dañoo digal ñu nekk ci malik yi ci madhab yi waaye ñëpp la nungul ndax demal ci xasida si lii bi malik yi المزايا شافعين أبي حنيفة أحمد المحمود الله wax na feneen fa gën a leer aimati fi fiq malikul ali wa shafii wa hanafi wa hanbali tasawuf junay di la yor junay di tasawuf dafa may xaaj sëñ bi nag ak tasawuful sunni yi tasawuf mooy al ihsan rek ñiy gotti ahlu tasawuf nag dañu umpale tasawuf te tasawuf moom aalimul amal bi ilmihi walam yamin mooy jëfi xam-xamam te jéngoo bu dee ci sunna gisuma ku gën a taral Serigne Touba ci sunna taral Serigne Touba ci sunna amul ku gën a taral xasida gi doon ubbe léegi muy euh, ala man ñaari bayte nga yoo xam ne defe naa kuy wax ak ñàkk a jëfe sunna boo agsee ci bayit yooyu la nga xam ne ni mu tarale kenn dégg fa dafa wax ne ومن لم يلد نهجه ينتظر بخل ثقيل ونار نفور الحرام على من هداه أبى دخول جنان دخيلا تريح nee na dafa araam ci ku nangu la topp sunu yonent bi sax ngay tabbee dem xanaa ngay yëgagul foofu dañuy wax ku topp sunu ñu naan bidaa bidaa sëñ bi nag moom dana xaraamu ala man hudaahu abaa duxuula jinaanin daxiilan tariix ki nanguwul a jaar ci jub gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na dafay araam ci yow nga tàbbi àjjana ku sóobuwul aw yoonam it wa man lam yalid nahjuhu yuntazar képp ku nanguwul a sóobu yoonu yonent bi alayhi wasallam des na la xaare ëllëg ci sawar des na la xaare yi ay ceen yu mën a jëng kon bu dee dégg sunna su yonent bi alayhi wasallam kenn mënut a yegg ci dayo bi ci Sëriñ Tuubaa yegg mu jàngale it yonent bi alayhi wasallam wax ne kenn ci yéen ak gëm yàllaam du mat ndare li mu bëggal boppam du ko bëggal mbokkam laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsi kenn ci yéen gëm gim gëm yàlla uh-huh. mënta mat bu fekkee bëggalul boppam mbokkam li mu bëggal mbokkam Sëriñ Tuubaa wax ni kunu ibadallahi ya ixwani bila taxassudin wala udwani man habba li aqi alladi yuhibbu li nafsihi radiya anhu rabbu defe naa loolu yi mu ne su dee yegg ci dayoo bu toll moom dana nekk leen jaami yàlla yéen samay mbokk bilaa taxaasudi ci li dul iñaanante wala odduwaan wala noonante wax ne képp ko xam ne man habba lil aqi alladi yuhibbu li nafsi képp ku bëggal mbokkam lim bëggal boppam radiya anhu rabbu yàlla dana ko gërëm kon ku loolu te sëñ Tuubaa yemul ci bind ko rek waaye da koo jëf ba noppi jàngale ko defe naa ku dem ci biir bindam dañ ci fekk wax fi li kulli mu'minin wa mu'mina wax fi li kulli muslimin wa muslima wax fi li kulli muhsinin wa muhsina defe naa it da nga fekk ay mbir hafizu suñu ummata xayra mursal ani alladina kafaru bi rasuli defe naa ko lim ci mbind bi dañ ca fekk xur ummatal mustafa an kulli mafsadatin wa tarhamil xalq yaa man jàll kum badaa yaa malikal mulki yaa man jàll an qawadin irham jami al wara yaa haadiyal badaa kon day mel ni da ngay dégg rek ne jëmmi sëñ bi ci boppam bu dee bëgg jullit ñu bëggante kenn mënta jot fi mu ci yegg dellu ci xasidaam boobu tudd madda bu shifa yi madda bu shifa yi wa axrina yaa rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma yow yàlla nag ñu xiit ci liggéeyal jullit ñëpp xidma mooy ibada ibada mooy xidma dañuy wax ne bidaaya bii mooy nihaaya bii waaye xasida googu di foofu di di shifa yi da caa jàngale yi gën a mat wajal xuluubana ala tawaadud na nga def suñuy xol ñu bennoo ci lu dul ak xëccoo wala ak kiñaanante lu tax mu diglee xol yi nekk benn alquran moo ñu jëkk a wax ni wala tanazahu fa tafshalu wa tazahabu rihakum bu leen di xëccoo boo leen xëccoo fa tafshalu da ngeen di échec doo leen am force da ngeen di yoxam wa tazahabu rihakum nag mooy da ngeen di néew doole mais da di jural ngeen gàcca sa ngéem bii da leen di jural ngeen néew doole Sëriñ Tuubaa wax ne wala taxaasabu wala tabaagadu wa fi lladi yudmi lhuda taahadu wala tanaasaxu fa inna dunya taalibuha laysa yawman saqiya te loolu nga ko mën a topp ci alxuraan lu muy diglee tere nga fekk na ko sëñ bi yeesale wala mu ci sunna yonent bi alayhi salaam na ko sëñ bi di kon loolu kooku mooy mooy xadiimi rasul bokkul ak nag xustu xayaatan daa turaali xayri mu'jizatan baana li usni xayri kooku a tibbal Cheikh Ibrahima Fall tuddal Cheikh Massamba te tuddal Cheikh Massamba ñu so kooku meneen la kooku mooy daan bokkut ak yii dañoo war a xàmmee Ahmadu xàmmee Xaadim xàmmee Abdullahi xàmmee Abdul Xadim kii jëmm la kii takk ndeer la ki roox na roox nag yasalunaka ani ruuxi qul ruuxun min amri rabbi mooy Abdul Xadim mooy képp ku fa yëgagul dese nga. murit boo gis ne mu ne ci ahmadu moo naan diwa jur diw moo naan jaamukatu sëñ moo bëggoon bi daal ku nekk ci Abdoulaye moo nekk moo julli ci géej gi ab jàpp ki ne ci Abdul mooy géej mooy Cheikh Rafa fa gaañee ne kos ku fa égg gu di lenkaar ak déedéet waaye boo xamee ne sammayta nii xat an bi abdikal xadim te tuwoo moom yàlla ko tuddee sëñ Tuubaa sammayta nii xat an bi abdikal xadim yaa man yaqudu li mushaaratin Abdul Xadim nag moo sañ a wax ustu xayaatan laa turaali xëy lii moo gisee tan baana li ummi xëy lii làmboo dund goo xam ne kenn du koy gis ci keneen ku dul man xam nga xuus ci mbëndigum adduna bakkan nekk sa wet bànneex lépp ne ci sa nga xuus ba jàll te benn dàkk sañ taxaw ne mucc naa ci bakkan mucc ci bànneex mucc ci adduna mucc ci seytaane adduna moom mooy sàkkoo mucc ci man xam nga Sëñ Tuubaa néewul man maa ngi jéem a mucc ci àdduna waaye dana àdduna ci boppam mooy sàkkoo mucc ci man ca miimiya fa nafs wal xalq wa cheytaanu xat farahu min qasdi ya lii dundee taxat salama moo tax sëñ Bay Jaxate wax Sëriñ Tuubaa nag yaa seet weles dox sax fu taq lu bon ma ngeen yàlla man mii taq bay tuubi defoo lu bon mosulaa def benn bis lu woon te waa judul yow def na si la lu muy tuubi kenn mës na jox yàlla xaqam benn bis na yow. giñ naa ne giñ naa ne wax ji soxlawul tuub yaa xëy na dong ngirum yoneen ba tey wéy wéy ba yegg rëkk nga def si yóbbu ko tuub moo tax ko wuutee te ak yow kooku amtu yiilu boo leen ko jóg mooy la tey moo def lu jër moo sedd ab xol te am xel te buuri gëtit te doy sëriñ sëpp ak yéefari kenn yëpp moo def sëriñ dëkk moo def sant kenn gisagul te man ci suuf si la muy dox yàlla somb na ko alhamdulillahi ñun am nañ sëriñ bu nu doy bu nuy fegal lépp lépp loo xam ne bëgg na ko kooku mooy Abdullahi wa Xaadimu Rasuul moo tax maam Samba Diarra wax na wax ne wujjee fi xew ne moom kenn du wujjam jamono ji jamono Cheikhu Bamba loolu moom Samba Diarra ngay wax sëriñ bi àndaar yokkul na xam-xam bu rëy ba wax Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari dana sëñ fa jaahu inda Allaahi jaahu muazzam fa man naalaha yasar bi aswa wasilati li annaka xutbul awliya wa shamsuhum wa hum minka amsaalu nujumu baida fa li kulli minhum rutbatun wa makaana taalat walakin faxtahum bi maziya gaa ñi baax nañ de sëñ bi nee na ko danoo baax de waaye ñëpp a ami may waaye dëgg-dëgg nag yaa ak may yow sëñ Tuubaa lu tax li annaka asfaahum wa aksarum tuqaa wa axfaahum turran bi basari sunnati yaa leen gën a sell juróom ñaar fukki at ak juróom sëñ Tuubaa dund na ko ci àdduna ma sa tiim mës sa faat waxtu mës sa juyoo boromam mës sa tooñ la dafa mës a rëdd ci njéeréen juróom benn rëdd ñetti rëdd ñëwaat tareet ñetti rëdd jël bi ci digg na ñett yi laa séq yàlla sama borom ñett yi laa séq ma digal def naa musuma def lu muy tere lu mu dogal neex na ma na ñett yi laa séq ak jàmm tooñ kenn ku ma tooñ baal naa la lu am bokk na kon Serigne Touba mu ne ko yaa leen gën a seetlu lan naka asfaw mu ne ci réew mi bitim réew yam kenn du la nekk lu ci histoire ne la Serigne Touba tiim na bis wala faat na waxtu bis musul am monsieur fu la jëf ba mu faat waxtu baa mu tiim du jooyoo boroomam baa mu koy fàtte waa Touba te gis naa ci waxtaanu sëñ Massamba sëñ sëñ Modou Xëy Bousso doomi sëñ Massamba Fati la sëñ Massamba Fati sëñ Bousso bee ko jur sëñ Touba moo yor sëñ moo yar sëñ Massamba moo yor sëñ Modou Modou Khari Bousso daana wax ne sant naa yàlla yar bàyyi yar doom sëñ Tuubaa da ko woo bis ci njëriñ fukki nett la ak ñeent nee na keroog ci sëñ bi ab turki la sol bu baax sol mbaxa nam ciwi cara sëñ bi dañoo miin miin photo bii waaye daana sol yeneen façon léegi-léegi day boole xaftaan teg ci xaf teg ci garabu teg ci jëlla la jalal jeeg bi bi muy mel ne bi muy tàggatoo mbakki bari mun la defoon gaaw bi mu demee muy màggal gi gisu fukki fan ak juróom-ñett yi fajar googu bi muy tàggatoo daa tegtale xaftaan yi ak jëlla bi ak garamb bi mu suut mu takk kaal yi ba ci dënd nga xam ne xar kanam bi tuddee fekk jàllaat jéeg jamal ji di ko war léegi-léegi mu def noonu léegi nii ci diggante bi di bàggante ci diggante kees yi di ko roñal bopp sëñ ma sàmba ne nag bis boobu bi ma wooyee ba xam ne curi ceera rasul ak ak ci njeene na ma ma sàmba moodu xëri dama laa bëgg a nekk lenn sama diggante tubaab ca biir wax joojee la ko waxee la tukkib géej gi dem naa ci ba ñëw lu toll ni dee de we jëfandikoo wu ma ko ci bàtt xam nga fan yi ñi ngi am bayit wu ni ñaari bayit yu tegtale di ko génne rek di ko waxtaane najawtu bi hifzillah min sabati al-ida wa li raadahum turran wa li karrama al-janba aqadina al-hanaam min kaydi man qala wa saara kanaaru al-qilmi bahru ma yumna moo ne ak ak waroon nañoo xam lan mooy kóos yi moom ila nasrina qad saara wa ma quyunihim wa xaafa al-ida minhu wa maalu ila salam doo yem ci neex gi rek waaye da ngay da ngay fekk doo yam ci neex gi lu mel ni xasida Romna lu mel ni xasida raditu anil mawla xasida karam naa rob naa shukur la di biir kaafi wan mu ni bayit yi ñu jàng li muy neex neex da ngay xool ñaari bayit yi li ci xew najawtu bi hafzillah kooku moo am tawxiid waxul mucc naa ci samay pexe wala sama dara najawtu bi hafzillah te ca waxaat yi waxoon na ne Muhammadul mun ji dawaaman xadimuhu wallahu yaxmini wa yaxmi jamia man yaxtaara fi daarayni loolu muy jàngale ci melo yu baax xam ngeen ne xanaa histoire Samori moom wóor na ne dugal nañ ko ci fuur fuur biñ ko dugal dugal nañ ci sëñ bi moo tax mu sañ a wax ne agadina alxanaan min kay di man xoloo wasaara kanaarul xel lii baxruma yomba Abdoulaye Salim mu la xam ba li ci xëcc daan dana wax ne naarun taajjajat alimu tarixa biha ila munajji xelillahi fi naar te moo ne sëñ bi bi ñu ko dugalee ci fuur boobu damay tàng-tàng nee na li ko tax xam ne béréb bi mu nekk tàng na nee mooy gaaw fendi mbind mi maanaam xalima gi bu ko sëppee ci daa gi gaaw gee wow moo ko yégal ne fi mu ne daa tàng rajawtu annaka taxmini wa tansuruni nasran asiisan bi naylin minka ridwaana yii ñuy jàng di ko dégg ci sëñ bi di ko wax moom ilaa nasrinaa mi ñu lekk lam nekk sëñ Modou Khari ca la bokk dane ko daa am bés nasaraan bi ñëw na ma ahmadu ba wuyu ko mu ne ma yaa ngi seen garab yee sëñ bi ne ko waaw mu ne ko juróom-ñaari wàlli yu lañu rey suul leen fa te seen maqaam ak seen kattan eggoon na ci bu jant bi fenkee bay so lu fi xew xam nañ ko yaa di juróom-ñetteel sëñ bi na ko mën ñu ko waaw mu ne ko ah ñee ne du ñu mën du ma ñoom ñee du ñu mën du ma ñoom mu ne ko bu 6 heures de matin jotee da nga ñëw ca quartier ga wuy si ñu fa ñuy entraînement yi nee na bi 6 heures de matin di jot ci ñett li sëñ Modou Khady ba léegi sëñ bi ci boppam tubaab bee ko jël si capitaine bee ko jël si nee na muy dox ba yàgg am lu tolloog moom la ko Ahmadou ne ma wuyu sëñ Touba nee na ma ne sëñ Modou Khady ne ma wuyu mu ne ma man la Jibrilu alayhi salaatu wasalaam Jibril dafa ñëw na ma Ahmadu ni tubaab yi dañoo bëgg laa yóbbu fa ñuy tàggatoo fa ñuy entraînement yee bëgg laa fil ci seen fos yi baa ñu fetal la yàlla ñu jox ndigal la dem leen ngeen taxaw Ahmadu boobee nag ca la tubaab bi gisee métal gi ci lu wóor na ko ñii yaa leen feeñ sëñ bi ne ko ah, maa leen fi tax a ñëw mu ne ko signal na doo fayam toog nga sanam ba faw mu signé xul walaaw ahad laaw samat lam yi di wala ñu la doon yokk loolu ahad ñu ne ko nga wax ñu ñuy sag njaboot yow ñu bàyyi la nga dellu ci réew ma tey dund sa diine lu la neex mu ne ko sama njaboot mooy ñi wax ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadu na ila nasrina qassaaruhu ma quyulihim wa xaafa al ida minhu wa maalu ila salam wa maalu ila salam moo andi négociation bi te li ci gën di ngor ci sëñ Tuuba mooy xew-xew yi bi mu amee Tuuba bu dañ ne ko na nga nu dimbale bu la bu bu ko nett li mu ah la wala nga waxatu ma ko wax foofu mu toll ci diggante bi te lépp day dellu ci jëmmi borom bi kon mësuñoo jëf benn yoon ba mu tiim baa mu fa dox wa ak surum tuqaa yee gën a ragal yàlla xasida gi bayit wii mun ñu wax nasaxtu bi shukru shikaaya sëñ Mouhamed Lamine Diop Adagani nee na sëñ bi daa nekk ci maa yomba maa yomba mooy béré ba sëñ Tuubaa gën a yàgg juróomi at la fa def toog ba yàgg rek xel ci ndawal ndax buum ki tax ñuy rey nag yi nga dégg ci annoncé ci rajo bi lépp nangam ba ngi fi nangami fi xiifam ba maram ba tawteem ga tumurankeem ga dàllam ya daan dox di dang ñu koy wutali di ko ca moo nu jural yii toog juróomi wax ne béréb bii rek yàgg naa fi wax ci xel mi rek yàgg naa fi sëñ la muy jub da nga nee na la ko ci yàlla fay mooy sotti jëmm yi ba mu fees dell ak i ci xalam gi mu xalam nga yàgg na boo demee ci Ghaybatul Bahri bi Abdoulaye Sali bi dañ ca fekkaat indi na lii nam lu ka météo xabil juuf bi na du melantaan yii melentaan bu ne toll nañ ci jum ginnaaw sam jëmmi sëñ bi mënatu moo gis ma fees dell ne ma tàmbali ilayka xat tubtu min xawli wa min amali min a si xat kum aktar maa ngi tuub lu ma wax lu ma def mel ni dañoo gën a bari ma ne ko yaa leen bind bind ma kon nag jaay naa bis ni ki tey ak am jom na ko waxuma la bindee waaye yow yàlla duutuma la jàmbat jaay naa bis ni ki tey njàmba jënde ko kent loolu moo indi ala ina li usni ala xëy mun a amin ca parce que bu doy waar lañu doon ci noonu ala ina a amin wala koo dig dem ba noppi ñuy xuloo di werante maa ngi kañ kii gën di xéewale wala ëchec yi lu ma jàmbat del xal ki mbindeef mi faqi de amam ñàkk xéewal lu ma ko amul du ko jàmbat mi def yàlla rek laa koy jàmbat kon tawxiid ak ak lislaam ak gëm dee suñu ko jàngal tawxiid ak diine ak lislaam dee suñu ko jàngal ku bëgg a dund xoola yoon wooy jaar ba dund waaye murid yi dañuy bokkaale gëmuñu yàlla xamuñu sunna loolu ku ko wax yaa ngi ci njuumte ndax moo fi ëpp jumaa ku dul jaamu yàlla doo am juma téeméeri juma ak juróom-benn fukk moo am Tuuba mag mu gërëm sa dëkk juma nga fa teel bi egg ci di wut ay kër sëñ Tuuba di fa wuti juma di wuti jàkk kon barakatul islam yi na fi aqbarat wa man xalaw ni fi baraaya xajilat barke bi islam dëgmal na ma ku ma bañ ci mbindee fi gàcce dal la lu ciy tax jariñu kon. mooy ñu xam ne mbër la moom ku ko bakk yëg ne bakk nga ko waaye amul ci àdduna ak alaxira lu nu mën a gën a jàngal lu tax ñu mën a dégg Serigne Touba ni def Serigne Touba lu waay baax la nangu na la ko ku baax nangu na la sax baax loo am nangu na la ko woote jëmee ci yàlla borom bi subhanahu wa taala ci melakaani biir ak melakaani biti sëñ ma jëmb si bu baax ma day sotti sëñ bi muy jàpp yàlla sëñ bi ni ko xinit na ma jëmb mu ne ko mbàkki mu ne ko yaakaar yi kenn mu ko ma yaakaar tas la mu ne ko alhamdulilah bokk nag lu ci nekk béy bi de mën naa la ko wax lu ci nekk rek ay béy tamit bokk te waxi wolof jii mu leer bàyyi jiw mii ñuy bañ dañ na sëñ ma ladiba si la nee na sëñ ma pàcc si la nee ndax am diw mu ne abal xabaas bàyyi diw abal abal xaasim bàyyi diw bàyyi diw am nangam bàyyi diw abi hurayra moom bañ na ko bàyyi moos mi ma ne bàyyi diw ñoo ne sëñ ma jëmb si la yonent bàyyiwul xaalis yu ndënd kon bàyyi diw complexe baaxul bàyyi diw la sëñ ma jëmbulee mu ne ma yaakaar kenn ku ma yaakaar tas ma ne ko alhamdulilah mu ne ngir ëllëg yomal xiyaam gënu jëm bu yàlla teewee yonent bi teew maa sañ na ñokket na ko saa borom loo ma digal def naa musuma def loo may tere jéggalal jàmm loo ma digal kon ak taalibe bi loolu la ñuy fayee lu bari aw tur la nag néew jëf yoonu murid du ab société du association du kuréel boo xam ne da ngay dem ba xamoo foo jëm ñëw tabbi at tariqatu suufiya alhaadiya ila llah asasaha cheikh alxadim ala al imani wal islami wal ihsan yoonu tasawuf la bu tege ci iman ak islam ussu tariqat al iman bi tawxid wal islam bil fiq wal ihsan bi tasawuf ba'idatun anil ifraati wa tafriit yoon mu sori ëppal la ak yéesal yoonu murit bi nu ma ko yëgee nu ma ko sentiree nu ma koy dundee ni ko sëñ bi waxee mooy yoon ni sëñ bi waxee yoon mooy yoon ni ma ko dundee na te teg ko ci sa bakkan ak sa bànneex ay nax kepp la sëñ Tuubaa laa yaakaar waaye sëñ Tuubaa sama sëriñ waaye dama ne bokk yi giñ ñaa ko ci jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba bu ngor nee ci noonu bu fi sëñ Tuubaa bàyyiwutoon doom du sët du mbind de dara lu muy ëkk bu mu jubee ëkk ga kilomètre si misu yi daal di ngir li mu def ku mën a màggalu ëkk nag di màggale a màggal garab bokk na ci tegee ni jiitu xef su xormatin wa ulu himmatin wa shukru nicmatin wa xusni yàlla dafa warmaal ay béréb warmaal ay jëmm makka kaaba gi am yoo du ko tiim makka amul ay déport jidda moo am ay déport moo ne ab tabax la yàlla warmaal ko alal na ci ab ba mu tabaxee kanisa ba ca sama o oh, xanaa alam tara moom jàng nga ko fa jaaxalul xaas fi leer na la te ab tabax la Moussa xanaa yàlla nee na ko simil say dal nekk fii waadul muqaddas dangaa ne soo suuf si cal yàlla te yonent bi ne na ñu tabax kaaba gi ma màmm ko ñu tabax ma màmm ko ba muy juróom-ñaar fukki yoon moom a gën a sotti war a may ab jullit war ma moo jiitu war ma lépp sëriñ bi dana war te ci warmal sëriñ bi la nit di eggee ko bett sëriñ Tuubaa dara nëbbuwul ci moom foo gën a nekk lu mu sori sori ba jàpp ne du la dégg mu ngi lay gis na ko sam xel ne jàkk ndeem raw na say gët mi ngi lay gis te daawul leen seetaan boo ko fàttee nag mu fàtte fàtte lu say mbir kon war nga foo toll daf def ko waxtaan Seexuna Bamba moo fi wut séeréen te misaal mii lu wér la fil Quraan moo ko fi toll kon kon teggin daa bokk ci melo yu murit ndake bokk na ci teggin yitte jokkoo yi wax lu himma noonu dañoo bëgg a dabe mag ñi aw làmmiñ te duñu jëf ma fekkee woon jamono yi sëñ Tuuba petit combat yi ku dëgg boo fekkee woon grand combat da benn defet rek xam nga ne fu Cheikh Ibra Fall nekk ne sikru ilahi la sax yéen joxe ko ci lii la jaar ba joxe bàddil ko ko jeex ci téere ba jamono allahu akbar yàlla noppi na Cheikh Ibra Fall ëllëg la ñuy xam nga ci kaw tiim baa kenn xamu ko baa ngaa di Cheikh Bamba laam ngay làmp ci Cheikh Ibra Fall maanaam ñiy jàng bismillahi rahmaani làmb lonk boobu mënuñu ko jàng basin la ñuy jàng rek mu ne baa gi nag mooy sëñ Bamba dana fang làmb lonk bi mooy Cheikh Ibrahima Fall moo tax léegi-léegi nga dégg ko ne nangam ñëw ci alxuraan ba noppi alif laam bi mu radi ginnaaw yàllaa xam ne mi tekki côté ko xaaf xamoo ko saaf xamoo ko alif laam raa ayn ba noppi naan yàlla waxut lii dajal ñëw fi doon côté la xamoo mi ngi ci miim wala alif wala làmb mu ne amaana waaye di ko jeex ci téere xoolal engagement bi Cheikh Ibra Fall jël nee bu ëllëgee yomal xiyam ba ku seen ndeyam daw ku seen bàyyam daw koo ne yow mu ne du man ku ne ma yow mu ne mën a faal mën a faal kon engagement la yitte ju kawe nag day maye lu ne mag benn change lañ amoon mooy lu sëñ bi bëgg dana am lu nu sandoon ko def maam Thierno borom Daaru Muxti sëñ Tuubaa da koy senguloo këru daaru gi ay seng amul ci réew mi am ko ñëw na borom daaru ay seng amul ci réew mi mu ne ko xamoo sëñ Tuubaa xamoo ma lu sëñ Tuubaa bëgg dana am lu ma sant dana def li seng di jafe-jafe seng na këru Tuubaa gi ba noppi desal junniy seng juróomi bëri koy pont téeméeri junni ci xaalis te maa ngi dal di dellu xaar ndigal sëñ Modou Aminta Fall nee na liy dàq picc mooy dàq ndigal bu sëñ bi neena na ñëpp nangam nga ne oh kenn mënu ko doo ko mën yow danga naan fas naa ko yéen mag ñi dañ daan dox ba gànnaar mag ñi dañ daan dox ba Thiel mag ñi dañ daan fakk te mag ñi amuñu woon milliard mag ñi amuñu woon milliard te mës ta am yitte jun soxla wala aajo jun am di fajuwul mës ta am ci mag ñi kon ak taalibe pas-pas bu dëgër la moo ciy jëriñ nit taalibe goo xam nag sëñ bi sama gaañ la sëñ bi sama nangam la maam na borom dëw dama ci ba sit niswaat ngir dañ ñu gën a jox war ma sëñ bi wàcc sëñ maam bi su talaata sëñ Moussa Kane dañ koy déqi am ku jël seetal ak borom dëw bi jëm ci wanag bi boroom dëw na dab leen ko bu duggee ci wanag weeg seetal gi mel na ni ku jël ndayam dugg moom ci néeg def ca def yi lu baayam seetal ak sëñ bi laa wax daw nag ci lalu sëñ bi tëdd léegi-léegi sax nga tàpp soxna sëñ bi lëng ko dee bu gaaw a daa ko ñax def torox moo tax Serigne Baye Jaxate wax ne murid dëgg yombul la yombay nga wax ne murid dëgg laa te doo am murid Serigne Moussa ko wax lan amaana ku ñu naan muridun saadixun te fekk kooka mooy muridun saarixun day bay di lekk du joxe hidaaya kooku mooy murit na gaa yéen bu mu gaaw ne Mbàkke bal la te xam ne moos du wujju woto yàlla sëñ na Samba Diop Samb daana wax na ab murit day day siyaare tey joxe addiye booy siyaare doo joxe addiye da mel ne ku dem ci teen te yóbbaale bu got murit moderne lañ bëgg moderniser murit gi ci ne gaa yi yu neex yi amoon ci yoon yu ci bari dañ ko bëgg a soppalee xool seenu sànni si mi mbaxana si mi daal ndax nakke wala faal faal musul musul xool na neex waaye sëñ bi ay copain lañ ma ne ku la gën a jege sëñ Touba moo la gën ko maamam lëggéeyal sëñ Touba bu sa maam lëggéeyal su Touba a gën sa maam boo ko weddee Jóob day ne fa Kajoor Jóob di ko mi demutoon mooy doon teel a jóg mi dem xam ngeen li ma leen wax suñ ñaari bàyyi bokk ak yii ku la gën a jege sëñ Touba nan bàyyi caaxaan yi bu ko lijjanti ci pexe amul jëfee may nit li muy wut ñaata nit a bokk ak seen ñaari maam kii ne maa ngi dem ci sëñ Tuubaa kii ne ko nuyul ma ko boo demee bu ñu dellu si waatee waxuma yow ci sa bopp waaye gi nga am ñooy bay tooli alal bay njabootu kee nga naan ay bokk la nga moo demoon sëñ Tuubaa bi teel bi nga sëriñ Tuubaa doo moom ku ca bëgg a jot da nga def ni mag ñi defoon mag ñi ceex gii leen topp xamuñu woon dana am dafa am bis ci njëriñ sëñ Touba Cheikh Ibrahima Fall toog sëñ Touba day am ku ñu waxal xéewal yi baawaan Cheikh Ibrahima Fall naan ah baadu lépp daa yem tey baadu yëpp daa yem bi sëñ bi noppee noppi la wax ma ne ah, daa bari ma jàppoon ne lépp daa yem tey ma ko la ma dëgëre woon ak yow Mbàkke Kajoor dara gi ñu te dara du ko jiiti léegi ab teeli bi ak ceexanu ko dàqal ak murit damaa jàggat lu neex nit wax bokk yuy xool leen internet bi léegi Sénégal du takk d'accord li ma leen di wax boo leen nangoo ngeen dégg ko hadisul si man aadani waliyan faqad adantuhu bil harb ku noonu sama wali yu déclaré naa la guerre ponkal mu toll li sëñ Tuubaa njabootam nit nga ne yëkkati baat bu ñaaw teg ci seen kaw dafa leen duma yàlla du ci am du mbugal ngir soxor waaye ngir yar sëñ Tuubaa nee na woon jamono ngi ñëw ñett dana fi jëlee ñett ñett wutu ko jamono ngi ñëw iman gëm yàlla xaalis dana ko fi jële xaalis jamono ngi ñëw iman muy gëm yàlla xaalis dana ko fi jëlee islam tubaab bi ihsaan jigéen ñett yi la sëñ Tuubaa wax xoolal nag iman gëm yàlla xaalis jëlee na ko loola ko mën a may baax na goree wax lu ñaaw am na ci ñoo xam ne ndomba gañ takk lañ ca def ci ay ay ay ay téere mat na bëtëray wata ngir ak xos boo xuy diw jàpp ne doo laal ba noppi yëpp suturis kaliman incha moom it daabati fi rabbi la àlla risqa nga gëm yàlla waaye gëmoo ne yàllaay maye looy am ñu ne nu mu ko am fi ne ñàkk gëm yàlla day yegg ci boo nee sëñ maamul loo nga ne waa sawaay fu mu aw fu aw fu ko yàlla awale daa mën a awale boppam kër looy am nga ne ay pexe la am nga ne day dóor jamonoy dóor xanaa nga dóor moo gën ñu di la dóor ginnaaw yi waree lañ toll fexeel ku la gis xam ne ko war ngay wër ba mucc ci ko adduna ñett fi ne ku ne ci yàlla ku ne ci boppam ku ne ci yàlla nga ne ci moom ku ne ci yow nga ne ci moom ku ci boppam nga ne ci sa bopp ku ne ci yàlla nga ne ci moom ndax yàlla bi mu nekk ittaqullah wa kunu maa saadiqin kun maa allah fa in lam takun maa allah maa aman maa allah yuusiluka ila la in kunta maa ku nekk ak yàlla nga moo waral ñuy nërëm di jur di jox sëriñ si ñu ñun sant ñuy def ndax daal nekkal yàlla nekkal ku la nekkal nga nekkal ko loxoy kajoor day yëg nga yëg ko ku ne la fi ñukk la sama sàng ba daan wax sëñ Mahamadul Maxtar fa ku lu man ci boppam nag nga ne sa bopp kon iman xaalis dana ko fi jële islam nag tubaab bi dana ko fi jële bokk yi dañuy noddu timis ni mu gàtte bu ñuy nodd rek li xam am mat si am ñu teg penalty nga ne ma xaar occasion bi jàll action bi lay xaar action bi yàlla bi moom lijjanti woo am na ñu buñ ci dóog léegi mosuñu julli seen jàkkee dëkk fajar ihsaan nag muy rafetal jigéen dana ko fi jële kon Serigne Touba jàngaloon na ñu lii Serigne Touba nee na kuy werante daa ngay biddante xaw ma yiw waaye yiw yàlla raw na kon sëñ Mouhamadou Cheikh Sidil Mokhtar lii nga def moo di wax engagé maa nga attaqué gi ñu attaqué yoon we coow lu bari lépp kenn ku ne na fexe ba defar sa bopp ba kenn du jaare fi yow waaye boo doonee trou bu ne napp nga paaral ku ne mën a jaar ci yow yàpp yoon wi au lieu que nga xool yow ne napp ci yow nga jéggi ko fa ajaat sa bopp tam di joxe ñeneen naan gaa yi gaa yi burum loo fi yow di jàll te du yëg fu aw fekk sa pax yu rëy yii waral nit di jaar di jàll na ku ne réglé boppam sër yii yam ciy loxo ci lañ toll jamono yam ciy loxo ku yëmul ci loxo ngir yàlla yem ci loxo ngir vidéo bàyyi vocal ba nangam nga ne mun bari na ku daan tàng di sedd naan bàyyi naa gaa yeeg yàlla boo ne tuñ ñu ne tum nga ne jàkk xam ne yow nga ne miig kon sëñ Siidi woowoo nit ñi ba noppi nax leen sëñ Tuubaa nga woote sëñ Tuubaa lañ wuy see defe naa ku fi toog deux heures de temps yi jàll lépp xasida rek lañ ko kon nag yal la yàlla gën a jàppale yal na la yàlla gën a taxaw wax naa ko sëñ moo Diagne ci biir nee naa ko daaw ku doon anniversaire sëñ Sidi Mokhtar maa ngi door a jaxasoo moom waxtu bi daaw daaw bi ma fiy ñëw day mel ni boroom bitig bu yor bitigam di jaay nga bëgg ñëw jënd dama damay kuy waxtaan mu doon ko doon waxtaan lu li ma fi def lépp mu tudd 30 000 damay ñëw wax ñibbi dem ca fa ma jëm tey jii ñu ngi may xaar feneen te 19 heures fii la ma tey nag ma ne xarit ak soppi ak wóllare loolu nag moo ko jëf ndax am na ko bu bu bu mën na laa bañ a bañ a lijjanteeti te te adduna bi yegg na foo xam ne ah waxtaan wax dëgg yàlla ñu lay woo ngay waxtaan ba waaye bari nañ ñu lay woo ñun yow mi ñuy woo yaa dëpp ëppale foofu bu doon am am rek yaa leen ëppale foofu am sax yëf yi du du xaalis yëf yi ak yëg la te moom yëg googu la am bis bii mën naa ne ñaari boobu xotte na ma ko benn bi léegi laay door a ñëw nii ñu ne nañ ko leen jëli mu ñëw ah te loolu ak baax rek la xam nga nit nag sëñ bi boo nee diw da ngaa sérieux sérieux bu baax nit ku yiw gis nga bëgg nit ñi fonk la te moo njëriñ sëñ Tuubaa moo ko fi jëlee sëñ moo jëkk a ne saa nafin bi laa dara wallahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal baxri xam nga niw ngeen ñëw ma di leen noggatu fil barri wal baxri saa nafin bi laa dara dama leen di jariñ te du leen lor ku bëgg a noggatu nit ñu laaj fi ne boo dul jariñ kenn te bëgg la gëm nit ñi dañuy lànk bëgg la wël nit ñi dañuy lànk waaye lii defe naa man fii laa ko mujj gi sama daaw jay suñ bu daje yëkkati xasiida kilifa yi toogandoo ci jataay bi lii lañ mën a delloo sëriñ bi ci def kon maa ngi leen sant bu baax say teggin mate na ko lii nga def fii ci Wakaam yóbbu na du ku ne fa nga nekk man nga faa wat yow doomu nekkoo Dakar tudduma kenn nag bu kenn gànna diw la yor waxuma kenn am na ñooñ fañ na ci seen kon ñi ma wuñ faa woote ndax la ngay def bokkut ak la ñuy def ñoom aw gone yu jigéen la ñuy nokkatoo kum dóor ñi ma wuñoo woote waxuma la jëy suñu yëpp duñ sax lu ñëw fukk ak ñeent waxuma la jëy suñu ndax lañ nekkee seen koñ kon boo nekkee ndakaaru ak ndakaaru rëbe nga ñëw tey tariixa yëpp a ngi gis naa fi tiijaan gis fi xaadir gis fi ñaseen gis fi ku nekk ñëw fekk si la ci jataay bi sa jikkoo ko may dañuy wax ne nag uude matul ci bayu wopp uude doo nga ko ci mat ndax de aw aw deru bëy moom en surtout tool yi kon uude moom ci boppam moo ci war a wax gis nga wax ki koo xamul yooyu yëpp ay da ngay dégg ko naan diw bëgg ma am na ñu naan noo diw maa wax ci moom daa am lu ñuy iñaan ndax dañu xam ne bu ñu waxee ci yow mu doon lu baax ñu moom wax ci moom mooy man doo moom du yow yow yawa yow moom li nga xam ci moom wax ko baax lii nañ koy wax te loo xamul nga màndu ci loolu moo ñuy dimbal waaye lu nit am nga wut loo ca wax lu nit wax nga wut foo ko ca foo ca foo ca wegg-weggal loolu amul njort lu ñëw nga wut ca lu bees dafa am waa joxoon dafa jàng ba ñibbisi waa te du yem ci li mu war fekk benn dof boo xam ne dof bi day toog ci taatu teen bi rek naan 43 43 waa ji day dale waa dëkk bi réunion mooy mooy ñëwee ci koñ ci ko mënoo fay nekk moom mais yéen kii il faut que ñu parce que bàyyi ko ci buntu teen rek muy 43 43 il faut ñu xam signification 43 yi kaay lu nga am noonu de noonu lañ koy déggee mu toog fee wéeru ci bindi bi naan 43 ma ne non suba demee ngeen ñëw gunge ma mooy dem nga interrogé ko laaj ko lan mooy 43 yi ah waa na ko gis nga loolu naa nekk ànd ak moom mu ñëw ñu ñëw bay ba si ci mu ñëw rek taxaw bëgg a wax ak waaj waaj na ko cëfit na ko ci teen bu na 44 44 gars yi ah, kon 43 ñi ci teen bi 44 nag wasalaamaaleykum wa rahmatulah. saa yu ñu joxee kàddu ci jotaay bi wax ji dañ koo teg ci oh. xam-xam mbaa ñu teg ko ci ay at mbaa ñu teg ko ci aw fit kenn duñu ko jox waaye dañ koo teg ci ndigal ndigal nag day foog day fekk ndigal Sëñ Tuubaa dafa wax ne jëf day baaxee rek bu fekkee ndigal du ko loolu rek moo tax ñu sañ a taxaw ci kanamu kilifa yu tedd di yëkkati suñu kàddu waaye buñ toll waxi sëñ boobu dangay adduna duñ ko jaral ndax xam ne ñëweewuñu sëñ bi nag dañoo sant ñetti mbir yoo xam ne benn bu ci nekk rek ëpp na ab yan ci ma bëgg a lu ci dëng na ngeen ma ko jéggal te xaw a diis rek waaye nañ ne borom Tuubaa tax ñu yan ñu ko moom danañu ko téye euh, sëñ bi dañoo joxoon ndigal ci ñu wax soññi ndaw ñi ci xam-xam ndax léegi gis nañu ñu bëri dañoo jàpp ne yoonu murid moom du yoon xam-xam sax far ndax ndaw ñi léegi dañoo gën a jàpp ne da jël sëñ bi rek dugal ci sa poos ak àjjana jàpp ne lépp mat na te damay faral di wax ne njiit moom ñett rek lañ koy toppee ñaar rek lañ koy toppee mooy dalay tegtal mbaa mu gunge la waaye du la yenu yóbbu kon ku lay tegtal yoonu yàlla nag ci xam-xam rek la ko mën a jaare nga jëfe xam-xam booba laa di jëriñ loolu mooy tax ñu bëgg a wax ci xam-xam beneen bi ci topp mu wax ñu ñu wax ci lan moo waral bi moo def lii ngir sante ko sëriñ bi ak lan mooy cosaan beneen bi ci topp mu wax ñu sant mbokki taalibe yépp ci seen jotaay gis ngeen ne kon loolu ku ci nekk cër lu rëy boo xam ne dana diis ci ñun kon lu ci rëcc rek ngeen jëggal ñu lu ci jag itam ngeen xam ne ci baaxul sëriñ bi rek la euh, xam képp koo xam ne suñu borom dafa dogal nga ne Serigne Touba mooy sa yaakaar war ngaa fexe ba li nga xam ne kenn mënu koo nit mënu koo defal ba muy fardu loxo yi nga xam ne la waaye bëgg bëgg bëgg bàyyee la ko nga man wépp ci jaamu yàlla ndax kat sama waajur la daan wax lu am solo daan wax ne bu la sunna yi gënalee farata yi aw nga ci yoonu àlla sëriñ Tuubaa xaadalahu llaahu maxtaara lahu da gis buy wax day wax ne suñu borom dafa def mbindam mu kawe jaamu yàlla yëpp loolu nag tegtalawul ne da ngay bàyyi jaamu yàlla yi jàpp mbindam ndax di nga gis ci docteur yi ñuy wax ne maanaam nen ku nekk man naa wecc kilo yàpp taxul kenn ci ñun di dund ne leen bàyyi yàpp kon da ngay def farata yi rek jublu ci jëm ci sa nii boo xoolee ci waxtu wi ñu toll xam-xam ni muy yombe nga xam ne mën ngaa toog sa néeg di ko sàkk te mënuñoo fexe ba dab mag ñi ci dara nag ci genn côté moo war a tax ñu xam ni yaafus la mag ñi bi ñu daan jàng dañ daan jàng téere boo xam ne ci dëkk bi yëpp kenn nitu ko ñu topp di yor seeni i ëlluwoo di bind di ko ci jàng di ko raxas di bindaat ba def lii ngeen di gis tey kon lu lan la njariñ ñëw sama waajur nettu li ma muy jàng Masaalikul Jinaan Masaalikul Jinaan bu Seexul Xadiim ñu bari sax jàpp nañ ne bu ñu waxee Masaalikul Jinaan bu jumaa yi sax téere bi te fekk na sëriñ bi fa la tënk luy tasawuf te moo tax ñu topp ko bu doon lislaam képp fi la ko fekk waaye naka la si koy sellalee ba jaarale ko ci yoon wi ko yàlla bëggee loolu nekkoon mission mission boobu mi ngi ko def ci benn téere téere boobu ñu xaw na loolu gàtt pire la boobu la sax nga jàng ko li waaye ñu bëgg ko fa xam sama waajur nee na bi mu koy jàng aw fas la yoroon te daan ci beneen dëkk bu demee day yóbbu àlluwam abbu téere bi bind ci ab dog delloo ko dëkk ba jàng ko bu xëyee suba raxas ko delluwaat bindaat beneen bind noonu la ko jàngee te man mii toog bi ma ko jàngal xoolu da ko doon tari te man mii toog waxuma la tari ko waaye benn biy xamutoo ko kon kon war nañoo yokk suñu góorgóorlu bu baax ci xam-xam ndax sëriñ bi xam-xam la jël def ko muy lay taayam da wax ne kanzil hadiidu wal kitaabu wal adab laa jamaa fiddatin wala jamaa dahab loolu la Seexul Xadiim wax samay magasin mooy xam-xam ak i teggi du ay xaalis ak i wurus loolu la Seexul Xadiim wax daal wax ne annaxwu wala awruudu wal bayyaanu li sulli bat wali bihi ayaan kooku nag doo topp ci moom kenn di la raw ci sa diine loolu du farata nit nag dangay ngay def li la war loo ca teg mu am solo waaye boo solo diere boo solee baax na day ñaaw lool kenn doxam kon nañu góorgóorlu ci sàkku xam-xam góorgóorlu ci li nga xam ne moom mooy farata ñu ko jiital buñ paree nag lu ca topp ñu ñu doog ko caa teg ndax mbiri àdduna yii ngay gis sax dangay dañ koy organiser di way njiit yi di way nangam di way nangam kon lislaam ko gën a yeyoo lool nañu def li nekk farata nit nag fu mu ci dundam rek sëriñ bi wutal na ko yoon mu mën a doxe ndax ndax ndax ku nekk ak ba ngay dégg ak say at boo demee ci téere bi ñu tuddee tasa mudu sexaar nga am lu koy tuddee yóbbalum ndaw taxul mu fàtte ci mag ñi de dafa wax fa kullu man baadara waxta zigari ilal hudaahu staraa waxtal kibari képp koo xam ne ni bi mu nekkee ndaw fàggu na ak njub jëm ca bu nekkee mag noppal bu defee dañ mel ne ñu nekk mag ñoom amuñu ab cër mu ne wa man tadaaraka alladi qad faata min allaga waxam nga awqaata képp koo xam ne dangaa dafaata li la faatoon sax ci ak jaamu yàlla dundal waxtu yi booy dee di taxe kon nañu jiital xam ci lépp li te doog a teg jëf yaa ayuha subbaanu in xiftum xajal fa qaddimu taalluman ala amal bu ngeen ragalee gàcce gàcce nag ñëpp ko ragal moom ñaan yàlla musal ci gàcce bis pénc ndax boobaa ñëpp koy fekk te li gën a bon nag mooy jëf ba noppi baaxut loolu bañ a jëf saxabatan te jëf baaxut ñaar da koy sabab bañ a xam da koy sabab naw ko di ko sabab te naw ko ak bañ a xam bu ci nekk bañ a xam la rek ndax boo xam doo ko naw sëriñ bi dafa wax ci téereem bi ñuy wax jawharul nafis wax ne képp koo xam ne nii dafa jëf ba noppi naw ko jëfam joojee day naax saay wa rubbama ibadatin kabira قد أفسدتها لغزة حقيرة لا ينبغي لعبد دعوى عدم قرب به لربه ذي النعم yëllu ci benn jaam muy jege-jege lu boromam di ko ndamoo ngir ne dafa jege boromam kenn sëñu loolu nag ku ko xamul noo koy mën a moytoo te ñoo nekk di dund ci loo xam ne leer gi dafa bari lool muy xasida bu la yàlla deful ak ndimbal ndax koo xam ne ca baal ba nga daan fanaan di yenn ca teeree ba xëy suba mënatoo mooy yàlla dangay jàpp ne wàll yu nga léegi léegi nag bu fekkoon jiituwut xam ngeen nag ku deful ni yow mbaa awul fi nga aw rek nga yaakaar ne léegi kooka du dara te waxtu nga xoolee nit jàpp ne du dara rek dootoo dara kon nañu farlu ci xam farata yi ak sunna yi wér farlu ci topp sëñ bi ci ak jaamu yàlla moytu alal ji dañoo àgg ci waxtu woo xam ne nit ñi lépp xaalis lañ ci jiital bu ñu sax xoolati li nga xam ne moo leen di jariñ ëllëg baat déet te jëf dafa sew nekku ne danga nga koy jëf rek jot ci ëllëg su dafa xaajale jëf yi ñaar wax ne da koy jëf ba pare indi moo xam lu bon li la moo xam lu baax la da koy jëf indi ko indaale ko waxut ne man faala man jaa dañ koy indi. man jaa bil xasanati fa lahu xayrun minha bu fekkee ne da ngaa jëf lu baax ba pare indi indi googu nag xam-xam moo la ko mën a may xam-xam mooy mën a tax nga fagar jëf ci fagar ko yóbbu ko ëllëg moytu lépp lu ko si sa saaliwu mu baax bi daan wax ne fanaanee julli xëy suba di ko fàttaliku yenn fanaanee mooy yàlla xëy suba di ko tuubu ko gënal kon ab jaam dafa war a fexe ba nekk ab jaam képp xam ne yàlla moom buy tagg ab soppeem sax ab jaam la koy wooye subhaana alladi asra bi abdihi kon nañu doon ay jaam loolu nag li ma commencé rek xam-xam rek moo ñu ko mën a defal kon nañ ci góorgóorlu bu baax baax baax beneen bi ci topp mooy sëñ bi dañoo waxoon ñu soññee ci xam le lan moo waral ñuy sos bis bi liggéeyal sëñ Tuubaa moom nag am na ci ñetti kaaraange yoo xam ne mën naa koo tudd benn bi ñun ñëpp a ko bokk suñ tubaa ci dugal mbooleem murid yëpp baneen bi kaaraangeel yàlla la yàlla ci dugal képp ku koy liggéey baneen bi kaaraange loo xam ne suñ tubaa moo ko defal ay maam bu ci nekk dinaa ko leer bu dee kaaraange ki nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk nga xam ne ñun ñëpp ci biir moom suñ tubaa ko waxal boppam inna alladina saarahu li xidmati fa lahumu diyaaru wastal jannati ñi nga xam ne dañoo gaawantu di ma liggéey ndax da ngeen gaawantu de ndax ndax affaire bi ñi ci bëgg dafa bari inna alladina saarahu saarahu foo ko dégg mooy gaawantu su borom day wax saarihu ila maghfiratin leen ci yërëm ci yërmaande ndax lu baax moom foo ko fekk day gaaw jeex neex na bari na moom boo ko fekk rek xolof yi dañ koy wax ngay yar waaye du ci ëpp saa yu neexee du bari saarihu ila maghfiratin min rabbikum kon suñ tubaab ne inna alladina saarahu li xidmati fa lahumu diyaaru wastal jannati ñooñu am nañu ay kër ca digg àjjana loolu sëñ bi da ko wax fa lahumu diyaar kër yaa nga fa boo liggéey rek jël ñépp ne da ngay liggéey ñu doo ko defar kër yi kër ya ñi liggéeyee jël kon nag saa reexoo loolu moo tax benn la bi nga xam ne ñun ñëpp ci dugg kon ci liggéey gi ñu liggéeyal borom Tuubaa pour kër yooyu ëllëg mooy kaaraange li nga xam ne mooy benn beneen bi ci topp mooy kaaraange li nga xam ne yàllaa ko fàggul ko koy liggéey inna alladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma al muhsinin su borom wax ne képp koo xam ne day jihaad jëmale ci man yoonu njub bi moom maa ko ko garanteel ndax man ñi rafetal képp laay àndal loolu beneen xaaj la ci boo xam ne tax na euh, ñuy samp lii beneen bi ci topp mooy sëñ bii nga xam ne mënu maa wax ne mooy taxawal lii lii ñun ñëpp ko taxaw waaye moom mooy jëwriñ ndax lépp loo gis rek su doon day teg mbir ca kanam waaye kenn moo ko mu doonoon ci fii bu manqué jëf buñ ko amee niñ ko bëggee ku ci nekk fa nga taxawoon yow rek ko ko xajo kon ñun ñëpp a ko duñ ko ko bàyyee naan moo ko moom euh, dafa amoon benn euh, dongab Serigne Touba bu bokkoon ci ay ndawam yi daa yor ay caabeem ñu ko daan wax sëñ Muxtaar Sëñ muy maam ci sëñ bii sëriñ bi da koo mos a yónni ne boo demee da ngay dem Taïba nga ne leen loolee ñu sax muy jaamu yàlla ak liggéey seenu ñaq di ko dundee buñ ca saxee lu baax fu mu mën di nekk danaa ko xëcc indil leen lu bon nag lu leen jege-jege danaa fexe ba du yegg loole nag moom bu fekkee ca la sax bañ a bàyyi loolu kaaraange la joo xam ne moom la ko doon te suñ borom dafa wax doon alladina amanu wattabaatuhum durriyatuhum bi imanin alxaqna bihim durriyatihim wa ma alatnahum min amalihim min shay loolu yàlla ko nee na képp koo xam ne say maam dañ fee nekkoon di def lu baax nga jaar ci seen yoon wooye dama lay yëgal du ma la bàyyi ngay jëf comme na sa maam yi jëfoon ndax munoo dama lay yëgal ba pare sa jëf gi kon yi du ma la ko topp kon loolu kaaraange lu doy sëkk la ci nga jiite lu mel nii ñi ngi ñaan borom Tuubaa bi nga xam ne moo tax ñu di ko taxawal mu nangu ko nangu gi nag dafa fekk dafa bokk ci ab yar booy wax rek nga ne ñu ngi ñaan waaye ñun leer nañu naññi ndax Sëñ dafa nekk koo xam ne dafa wax ne jotaay buñ ko mës a taxawalal mu ci biir te lool du ko bind dafa wax ne moom du fi jóg ba pare nee na loolu yàlla moo nu ko xamal ñun yuallimul hayyu alladi laysa yamuut alxalqa anni abadan lastu amuut du ma dee yàlla moo leen ko wax man waxuma leen ko man nag dama leen ko wax su ko yàlla fi leen ko yàlla wax suñu borom dafa wax ne wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahyaa bu leen njortu ku ne ñi nga xam ne dañoo faatu ci yoonu yàlla dañoo dee déewuñu ñan ko suñu borom bi dund te suñ tubaa moom waxuma la faatu ci yoonu yàlla waaye dafa dund ci yoonu yàlla sax far benn yoon ba faatu mu sa def dara lu dul lool moom nag njariñam li nga xam ne moom la yor yëmalewu ko ci nit ñi nga xam ne ñooy ay taalibe képp ñëpp la ko boole te loolu bi di bind comme xasida yi waaye doon jàngale xam-xam doon jàngale téere xam boo xam ne maanaam li mu doon jàngale mooy nax da doon joxe misaal kese dañ ne waxaala rabbi nafsuhu baatu nafsuhu boo ko ci anglais ci arab moom la ñuy wax tawkii su ma ne woon man kat euh, damaa yebal sëñ jiili mii ci barab sëñ jiili bu demee mën na ne maa fi nekk sëñ Maamoor waaye bu nee sëñ Mamour ci jëmmam moo fi ñëw kenn du ma fi nekkal man maa ñëw loolu doon loolu doon misaal mu ne wa qaala rabbi nafsuhu yàlla ci jëmmi boppam moo ma wax ne anta tufiit alxawma kulluhum ba tuusilul murid yow ñi ñëpp ngay jariñ murid moom da nga leen di yegg ne kon ñun yegg gi dong lan leen lan leen lan leen rawee kat waaye jariñ bi moom ñun ñëpp ko bokk wa innani lil qawmi ajmaina zu nashatin li kay uqima diina nee na moom man dama fee ñëw rek di laabire nit ñëpp ngir taxawal diin loolu dong ma fi indi kon bis bi euh, ñun dong moomuñu ko ku fi nekk rek te di ab jullit njëriñu Sëñ Tuubaa loolu da lay fekk fa nga nekk nga jëriñu ci yàlla na suñu borom defal ñun ñëpp euh, bi nga xam ne mooy bu mujj bi nag sëñ bi damaa waxoon ne ma naa ko santal képp koo xam ne rek ceqi nga ab jéego ñëw fi loola mu def ko ñetti xaaj ñi nga xam ne dañ fee ñëw ngirum mbokk ak ñi nga xam ne dañ fee ñëw ngirum nawle ay mbokk ci sëriñam ñu ko mën a tudde ak ñi nga xam ne ñoo tax lépp taxaw mu ñun man man ci ñii laa bokk man ndax Sëñ Tuubaa dafa wax ci Matlabul Fawzayni day day jiital day dañuy jiital ñun lay jiital ahli lay wax wal waat teg sax ay doom doo maske nii nga xam ne ñun ñii ñun lay jiital ba pare doo ko teg ay doomam doo ko teg ab dëkkam kon am na fu mu teg man maa ngi ci ñoon ñuy jiitu man damaa ko jiitu man su ko defee kon euh, ñi ngi sant mbokki taalibe ki di leen wax ne sëriñ bi nee na cant gi nga xam ne moom leen amee da leen ko war a wax te munu ko génne ci ay kàddu damaa wax ne ma ci dereetam la nekk di ci daw nga ne ma cant la goo xam ne ci dereetam la nekk di ci daw ak kàddu mënu koo leeral lim ci man rek mooy di ko xalaat xolam di seet noonu la ko wax yàqu ma ci araf du mu koo tari kon sëñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax sant googu man ci laa dugg moom man maa ngi di sant ba beneen bi ci topp mooy nee na mi ngi sant képp koo xam ne euh, nga am ci ab cër ci sëñ Tuubaa boo xam da ngaa bokk ak moom ci deret moo xam da ngaa bokk ak moom sëñ bi sama am da ko doon liggéeyal nga teew fi nee na mi ngi ñaan ci barke borom Tuubaa sa teewaay boobu suñu borom def ko yiw woo xam ne képp ko la xam da ciy jaay jariñu ba ëllëg nee na itam mi ngi sant mbokk ci boppam yii nga xam ne dañoo jógee fu nekk ñëw teew fi ngir deret bu leen di xamal ne silatu rahim yàlla moo ko digle kon yàlla su borom fay leen ko aw yiw ngeen dajee ci njariñ loo xam ne amul fu mu yem nee na mi ngi sant ay mbokki soxna yi boppam yoo xam ne dañu fee ñëw ngir ak mbokk ba tey ñoom nee na fu ci a nekk rek te turam mënu faa àgg wala mënut a tudd sa tur da nga xam ne bu ko mënoon def mi lay sant bu baax a baax di la gërëm di sant itam ñii nga xam ne nag ñoom ba dul dara ñoo fi nekkoon euh, gore dafa baax ba dul dara ñoo fi nekkoon lu fi mas a xew ñu daan joxe seen loxo bu mbir mi egg fii tey mbir mi nag dama ciy wax loo xam ne mu koy delloo ci ñetti kaaraange yi moo xam yooyu ku ko am ci mbir kaaraangeeg Sëñ Tuubaa kaaraangeeg yàlla ak kaaraangeeg koo doon ne si sa mbirum maam doy na ku ko am ci mbir am nga ab samp nag ba samp am mbaar liggéey Sëñ Tuubaa ak dama yaatu moo ko seetaanu weer kenn doy kenn moom tam neex nga ñëw roof sax genn waaye lii moom lenn kese laa ciy wax sëñ bi muy dénkaane loo xam ne suñ mbay jaxate moo ko dénkoon sayful xatim ma jàpp ne nag bu suñ bay jaxate amee euh, mën a bu manee dénk sayful yi ma mën koo dénk man suñ mbay jaxate dafa wax suñ tubaa ne ko ku nam ma for na farus xaalis te kenn bañ a for as wax su dox di wax naa yaa ko wax fiiti garab ñoo koy ronu ñoo koy for di jaay ak a mus koo gis ña koy ronu rek tax ñu xam koote moo koy xamal ne nag bu fekkee ne sax na ci loolu ndénkaan loolee ci dina nekk bu ci jógul lii moom ku ko ci raw ci liggéeyal Sëñ Tuubaa rek da nga ko njëkk a judd kepp waaye Sëñ Tuubaa moom amut deret amutu xeet defar na buur defar baadoor ku ci nekk rek sëb cër nga cay am ñi ñaan yi sama mbokk yi jàngkati xasida yi sama cant bopp man man da ngeen maa daaneel a daaneel a daaneel ba maa mujj sax naan ki ma den doon man daa mel amatuma jël sama jëli jàng bëgg nañ lool mbégte moo xam ne nii suñ tubaab mi tax ngeen yëkkati seen i kàddu yàlla na leen ko fay fay moo xam ne képp ku mas a bokk ak yéen rek dana ca jaare ëllëgam njàkk ba faw wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin inda ka sin dugu leen yi daari mi nan ginnaaw bi nu sant yàlla bi nu ci yonent bi noo ngi sant Serigne Touba Khadim Rasoul ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla fi yàgg téwéer naal yi mu naanal lislaam naanal ko sëriñ bi mu àggale ko sagom te nu ànd ko moom nee naa nag noonu koy yalwaan nun murit yi di ko déglu ci yeneen i naaw ndax noo ko doon ñaanal ne ko yàlla nga fekkee matuk université bi yàlla nangul na ko ko noonu ñaanal mu naal ak yeneen i naaw yu tàmbali tey te mu dundaat téeméeri at moom Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg te wér Cheikh Mountakha ab sag la sëñ Mountakha tiitar la sëñ Mountakha ku dalal xel la yàlla na ko fi yàlla yàkkal siyaare mboolem kilifa yi ci jataay bi kàddu yu ñuy yëkkati nag day kàddu yoo xam ni dañ koo yëkkat ci ndigalu Serigne Mountakha mii mu Serigne Modou bu sa dem muy kàddu yi bàyyi koo ci bàjjanam kilifaam di soxna Bally Mountakha bintu Serigne Soy bu Xaadim Rasul Serigne Mountakha mii la Serigne Modou Bousso Dieng jël tuddee ko Serigne Mountakha Bassirou ba noppi jox ko ko mu yar ko kon moom mii Serigne Mountakha da koo doyloo moo waral bàjjanam soxna Ba di doyloo ko mu ànd ak Serigne Djili Pof di Serigne Mor Lo Serigne Mame Cheikh Babou Serigne Lamine Seck Serigne Mountakha Ndiaye ñi ñu àndal ñëpp ñoo ngi siyaare bu baax mboolem njabootu Serigne Touba ci fi teew. bàyyiwunu kenn mboolem seex yi Serigne Cheikh Khadim Fall toog man naa ne mooy jëwriñ ji buñ ko nuyoo rek nuyu sëñ Cheikh Mbacke Ndiaye di sëkk sëñ Daaru Assane Ndiaye mel na ni mboolem ñi seen maam la kenn Serigne Touba ñëpp dugg nañ ci biir loolu Serigne Makhtar sëñ Mountakha nee na soxna Bally Mountakha wax na ne mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm ci say taxawaay di la ndokkeel baax ci bis nee na li fi indi sëñ Bassirou Abdou Khadir indi fi sëñ Mahmoudane mu sëñ Abdou Lahad indi fi Serigne Bara Soyibu indi fi Serigne Bass Khadim Awa Ba démb si Abdou Lahad Pende Fatma Serigne Sidim sëñ Modou Makhtar ak ñii ñëpp nee loolu moo waral délégation bii moom it. du dara lu dul da ngay law teg sa tànk fi nga ko war a teg teg ko ci siraatal bokk ci taw ñi nga xam ni kenn du jaar ci yéen di yàpp Serigne Touba. Cheikh Massamba Mbacke sama Serigne dafa dafa raam di wuti sëñ Touba ranguñu tuur daan ne ko Mbacke yëpp lay sant. réew meeg bitim réew amul sa pay sëñ Tuubaa ne ko ma sàmba mu ne ko mbàkke mu ne ko mbaa fere yi du ñu xëy bis mbàkke ne yi du ma sëñ Tuubaa nee ma ne Seex Masamba jooy ne ko mbàkke kenn du la am mukk di la wor di jublu keneen Masamba mu ne ko mbàkke mu ne ko war ma mooy nit xemmem ma jëm si ci man ni yem ci yéen dëpp nit xemmem ma jëm si ci ne yem ci yéen dëpp ne ko loolu mooy war ma waaye sëriñ Makhtar mii ni ko njaboot Sëriñ Tuubaa ji def loolu jikkoo ma tax kon na soxna di nee na jikko jot la jàpp ci yow nee na gis na ni ndaw nga waaye ku am personnalité sa bopp nga ku xam sa bopp nga defoo daray mata bi defoo lenn loo xam ni rek waroon ak liggéey Serigne Touba bii nee na jikkoy tedd yu sell yooyu moom la gis ci yow sëñ Muntaxa mi nga xam it moom la yabal léegi bi ñu ñëw ci yoon bi doon la wax nee na yar la xam ci yow teggin la xam ci yow pëstéef la xam ci yow loolu yi nag moo fi dajale ñëpp kon moom sant nañu la gërëm nañu la Serigne Cheikh Khadim Fall moo it ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ndax ni sëñ Khadim mii di sa doom mooy xaritu sëñ Maxtaar boo ko yabaloon fii mu toog da koy mate sëkk kon boo bàyyee lépp ñëw te yow nag da ngaa créer innovation ci kër Cheikh Ibrahima Fall ndax première mai bi nga xam ni ñëpp nañ ne mooy fête du travail yow nga jagleel ko Cheikh Fall ndax liggéey moom ki buñ nee Cheikh Rafal un keneen dootul doon deux ndax bi gaa yi indee ay wax Cheikh Rafal moom jëf la def nee naa nag ne Cheikh Rafal moo nu wutaleeg ñëpp ku mu neex nag sëñ Tuubaa mën naa bañ a doon sa sëriñ waaye képp kuy képp kuy àpp taalibe tarixa boo mën a bokk Cheikh Rafal ay sa patron loolu nag mën naa koo saraax ndax dañoo toog jamono joo xam ni loo wax dañ koy càmbar dama ni ku mu neex ne sëñ Tuubaa du sama sëriñ waaye kuy taalibe tarixa boo mën a bokk Cheikh Rafal ay sa patron moo fi xewal ab sëriñ toog ci kaw ñu toog ci suuf boo ko jubee raam boo ko doo ko nuyoo loxoy neen bu la yónnee nga daw dugg dugg loolu ñëpp dem nañ ba maasaral ko ci tarixa yëpp fekk si nañ Seex Rafaan ci loxo kon moom moom patron la ci yëf yi royukaay la ci yëf yi ba noppi nag sëñ Gàmbi Mesere wax na ko léegi yëf yi ñu ngi koy bëgg a jaawale te buñ ko nangu ñëpp a yem ku koy wax ku ne ab dof nga buñ nee la Serigne Modou Diop Massamba danga naan sëñ Massamba Diop Samba ko Diop. buñ la nee kan moo jur sëñ Massamba Diop Samb ni xaw ma ko ngay wax buñ la nee sëñ Baara Diop koo jur nga ne Cheikh Issa ku jur Cheikh Issa da nga naan ni xaw ma ko buñ nee sëñ Modou Moussa Fall nga ne Seera Fall te kan moo jur Seera Fall ñu néew ko xam kenn kuñ la ci ñoom buñ la tuddalee baayam doo la waxee doomam doomam nga xam ko kon yëf yi la ko waral mooy kañu moo wuteeg ña seeni doom yi bàyyi fekki sëñ Moussa nga paa yéen ña wuy si ña fa des ñeenañ leen kuréelu xasida gi nag mention spéciale yéen bis bi am na ñoo xam ne yéen a leen ciy indi am na ñoo xam ni bëgg leen a déglu moo leen ciy indi ndax ni mbooloo mi toll di yëkkati xasida ndax nag benn béytu xasida sëñ Tuubaa ne xajul ci wakkaan sëñ bi dafa ne zikir yi wa sukkur yi wa ridwaan yi wa mahmadati bil bi wal jismi wal axlaami lillahi sant naa yàlla gërëm ko jullit yonent bi mu daw sama deret dugg sama yaram jaxasoog moom door a waat ci xalima ji ma door a wax looloo sabab isa katabtu tasal arsul baax wa sabahat malaykatu baax yi nee na ma sëppee rek aras day jaayu malaaka yi lu xew ñu ne Serigne Touba maa ngi sëñ Muntaxa moo sëpp xalima di wax ak Muhammadu Rasulullah daan ne kon haajal xasaayidu sama xasida yi di leen di yëngal ak malaaka yi ne ca yàlla fenn nag benn jullit bu fenn aras sëñ Tuubaa ni zintu xas it xasaay di tandur bay na arsiwal kursi yu tankul may na jël naa xasida yoo xam ne dañuy wër arasa kursi yu di delloo fen yi kon na yàlla lu ko yàlla fayal sëñ si xaddi إن البلاء وطر عين وكرام يا ربنا بحرمة الحباس اللباس بحرمة الحسن والحسين يدلي في الدارين بالنارين بحرمة الخاسم ثم الطاهر سفي سواهر يا محتمائر بحرمة الطيب إبراهيم يو علي البشر والتكريم بجاي فاطمة أبت نفسي عن كل ما يدل لأكسي وبرقية وزينب اكفني أتركب الحجاب كل زمن وأمني الدنيا وأخرى وجنبني الأمر بأوزن النعام وعرمي وحق مسروخ تقبل كلمي وبربيك وبجاه الأسود حبل الاستقامة وخل أرضي بعامر بن عابد الرحمن وبأبي مسلمة الخولاني لي بالغفران والسعادة والحلم والحمد والعبادة بالحسن البصري هب لي الورى والانسلاخ من حوايا والبداء وبأبي هريرة وببلال وبسهيب ربي جدني بالنوال وتحقق بالوسيم من طائي سرا وجهرا بأبي درداء بحرمة المقداد ثم خالد وبي زبير أو للمقاصد وبأمير المؤمنين عمرا خني مكرا وسخا وقررا بحق قائد المجاهدين علي للذي أعان بينا بحق زهد وبحق عروة سدني تمسكا بوسقى عروة يرمى بالقاسم ثم خارجا سدني يخف المتبى المناهجا وبأبي بكر وعبد الله في الدنيا فضلا ما له دناء jërëjëf léegi nag ñu déglu mu mel ni ñépp ki ñu war a déglu nag mooy suñ Seex Xaadim ñu dalal maam Cerno mu Seex Mudu Kara Mbàkke Noreyni mu toog ñu déglu sëriñ sëriñ bi ne mu ngi nuyu ñëpp ñu ñu dalal sëñ maam Thierno mu Cheikh Modou Kara mu toog ak sëñ Ahmadou Sougou borom journée Cheikh Jiri Wadane moom sëriñ maam moomu Cheikh Modou Tassirif moom it yegg si na ñu dalal leen ñu toog te ñu déglu nag kàddu yi sëñ Cheikh Bay Fall ñu déglu attentivement ñu déglu sëriñ bi sëriñ bi nee na asalaamu aleykum wa rahmatullah gannaaw bi ñu sant yàlla sunu boroom julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Khadimu Rasul Cheikh Ahmadou Bamba ñoo ngi sant Cheikh Ibrahima Fall cantu amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem gannaaw bi loolu wéyee sëriñ bi ne mu ngi sàkku ak ñëggal ci njabootu Sëriñ Tuubaa ji mu fi dajeel nii jotaay bi demee ne ay taalibe rekk la te du nu doon nag lu dul moom te bëgg noo doon itam lu dul moom ne ñoom ay sang la te du nu doon mukk lu dul ay sang sëriñ bi nee na mën nañu jàmm ndax dees nu ko jure ne jébbalenu nee ñu fekk fi lu dul dindi kon bu nu ñëwee ne na sag yi toog ci kaw ñu nit ñu toog ci kaw waaye sëñ bi ne gis nag gann nag ci ñun ne mun ta xool day jox ne mun ta xool càmmiñ ne bëggut a gis kenn koo xam ni woo ta def nag nii ci kanam sëriñ bi ne mi ngi leen di jikku nee na su wii ne ay kaddoom ci Seex Sidil Muxtaar nag ci la ko jëme ne mu doon lu gàtt waaye lu dëggu nag ci man lii nga ko cërale Cheikh Sidil Mokhtar sëriñ bi ne rëy na ci moom lool bi mu rëyee ci moom ba nopp wan na ko ak kawe ak yitte loo xam ne nag jox nga ko sëriñ bi ne li tax mu kawe ci moom ne ñi nga ko duppe jox leen ay cër kenn ku nekk kenn képp moo dox sa digg ak Sëriñ Tuuba ne foofu soo ko fa tàmbale te muy ab taalibe nee na fu fekkee ni gor as gor la waaye waaye sëriñ bi ne dana rëy ci moom leneen li ci des nee na cër bi nga ko sedde ne ñu ñi sunu maam yi daje woon nag ci sëriñ Touba ñëpp ay nawle rek lañu ñëpp ñëpp ay nawle rek lañu kon nag tey su fekkee ni sëriñ bi yëkkati nga ab cër te muy nuru cërub dara jàpp ne nga jox ko ko way way bu fekkee ni aw nit lañu te lu xam cër bi dañuy xam cër bi mun ci moom liñ ci moom sëriñ bi ne ñu téye ko waaye Cheikh Sidi Mokhtar sëriñ bi ne téye nañu cër boobu yéen ci bokk ñëpp nangu nañu koo bokk ak ñoom li ci des moom mi joxe cër bi waaye sëriñ bi yaa moom waaye delloo nañu la mu ngi lay ñaanal. ci doole yi Seexul Xadiim barke maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla ne suñu borom def la mag te nga barkeel barke maam Cheikh Ibrahima Fall yéen jànkatu xasaay way way suñ Cheikh Xadiim ne mi ngi bég ci yéen lool di rafetlu nag liggéey bi ay ndaw ngeen mënoon ngeen yëngu nag ci leneen ngeen foog seen lépp. jëme ko nag ci sëriñ Touba waaye waaye yal na leen sëriñ Touba fay wax leen amin ne soxna yi yal na yàlla barkeeleen leen wax leen amin ne na te barkeel seenu njaboot kilifa yi fi ñëw yépp di ay doomi soxna yu bokk nag ci yoon wi ak yu bokk nag ci tariixa yi ñoom itam yii nga xam ni moom lañuy ñuy dox ci lislaam nag te mu tax te dundal islaam nag indi leen fi waay waay yàlla na leen ko yàlla fay ne bi muy ñëw ànd naa ki bokk muy bokki taalib bi munta lim waaye kon sëriñ bi day juum waaye mbooloo yii ñu àndal te li ci ëpp nag di ay kilifa kilifay diine ak kilifay àddina lépp delloowaat nañu ko ci sëriñ bi te di ko ko xam waaye waaye sëriñ bi ne mu ngi ñaan yàlla sunu borom waaye waaye ñu teewe ko nag déwéni déwén yu bare barke sëriñ Tuubaa ak maam Cheikh wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh